le B52 kontaan ci yow. waaw kontaan naa ci yow. man maa ngi am mbégte lool ci yow. waaw man mii kontaan naa lool di nuyu di nuyu nuyu uh-huh. euh, tey nag dama dugg. Mm-hmm. dama dugg tey ngir félicité la. ndeysaan dëgg la. defe tey wax nga mooy lan mm-hmm. tey. tey mooy lan. mooy centième numéro. tey mooy centième numéro. Mm-hmm. sànqeen numéro yal na ko yàlla def ay numéro yu bëri bëri bëri. amiin wa iyaak. mais dama ne woon naa dugg pour fédéral loolu. Uh-huh. mais comme xam nga dafa nekk fii sous contrat ak promoteur. Uh-huh. normalement suba mooy euh, suñu dernier match yama doon tay bii bokk ci. ah. déglu rek ma ne yama doon tay. bii bokk ci de. Ah, ah. wa xoolal. ñu ngi lay félicité bu baax sa déglu rek déglul. ma ñu ngi lay félicité baax sa victoire bi. Bombardier. yaa ngi dégg. mane dafa am lu xew dafa am lu xew déglul. ñu ngi lay félicité baax sa victoire. bañ a waay mi ngi leer nañ. allo. waaw loolu man kañ laaj naa la ko xaw ma lan la. grand man la Zos ma ne maa lay félicité sa victoire. allo. allo. waaw wax mi ngi lay man ma ne allo ma ne ma ne Bombardier damay wax ak yow Zoss ñëw dugg ci si biir plateau bi te invité wu ma ko ah? damay wax ak yow Zoss ñëw dugg ci ci biir bi te invité wu ko Zoss ma ne waaye Bombardier dégg nga ma waaye yow tam roi des arènes dama la ne damay wax ak yow Zoss ñëw dugg ci biir plateau bi te invité wu ko dañ ma invité si benn làmb Mbour. waaw. moo tax li ngay wax man dama ko bu baax. mais Zos waxal ak moom mi ngi lay dégg. tey juste li ma bëgg mooy. waaw. dama leen dama dugg pour souhaiter la ni la tey mooy sa cinquième numéro. dëgg la. dama nekk ci sous contrat ak promoteur. Mhm. lu jëm ci mbiri làmb du ma ci wax dara. tant que defuma suba dernière face à face ak le promoteur Aziz Ndiaye. jërëjëf le B52. jërëjëf jërëjëf le B52 loolu rafetlu naa ko trop mais sos mais foo nekkoon yow ba ñëw fii nii lan la. dama ko sentir quoi dama sentir ne tey xam nga donc maa ngi gërëm Sénégal yëpp di ñuy ñëpp di suñu seen tur seen tant di leen ziar di leen baalu àq. Euh, taxawal normalement rek yow nga wax mais yow xam naa ni xiif ba bopp ji fi mu toll nii ma sànq day wax mel ni déggu loolu moo ko tey moo ko tey xoolal dafa nekk sous contrat te wax dëgg yàlla loolu la ma wax nit gémmiñ bu waxul dëgg wax safaan ba ndax nee na ma Lamine ma ne ko naam mu ne ma man aw ma sañ-sañu wax ci wàllu komba parce que dama nekk sous contrat te suba lay jeex li ngay wax yëpp dégg na ko mais man li ma jaaxal mooy Zos dañoo gis Ama Baldé ñëw dëkk la ama neex ñëw dëkk la loolu jàll ñu gis ñuy waaj a soufflé combat Balla gay ak Bombardier nga gàddu sa sabar dem ba ci digg ba dëkk leen ñoom ñaar ñu pare nga laaj ki nga xamante ne nii moom mooy vainqueur bi. ne soxlawoo woo ki daanu ki daan nga soxla. ndax da nga soxla roi des arènes. loolu ñëpp dëgg nañ la l'œil du ndax l'œil du tigre mardi kenn du seetaan benn télé ku dul l'œil du tigre. loolu ñëpp dëgg nañ la lan moo tax nga wax loolu. waaw avant tout damay sant yàlla jur seen yéen salaam di sant samay waajur sant sama yaay di sant aussi ñëpp ñu may jàppal ñaanal sama papa yàlla yàlla xare àjjana di remercier parce que boobu léegi aussi daf may sorti dëgg la aussi di remercier ñi ma jàppale si combat bi yëpp lu mel ni sama grand Cheikh Amar ak euh, Kader Ndiaye ak euh, grand Sous Mbagnick oh. ak ñëpp ñi nga ma ne soutenir sama président Mbaye Diouf Dia ak ñëpp ñi nga ma ne soutenir ma si combat bi xam na di leen remercier bu baax xam nga donc di leen wax ne aussi man làmb moom xam na moo ma yóbbu foo xamante ne nii tey fi ma yegg si làmb làmb moom fu yóbbu te maa fa aussi liggéey bu baax pour mën a yegg foofu yaa fa sa bopp voilà gannaaw ndimbalu yàlla yaa liggéey voilà Lamine ñu bëri dañuy dañu xamul dara bi may ñëwaat di bëri ak ay booy man maa ko def ne exprès pour ñëw di bëriwaat ak ay booy comprendre nga parce que dañoo ne xale yi ñoo ñu mën a génne ci làmb ji xam loolu la ñu waxoon hmm. léegi ñu jël ku ne ñu jox la benn booy pour ñu pour mu génne la yow ñu jox la ay booy jox ma ay booy booy yëpp ma daan leen ñu dem ba booy bi leen daan ñoom ñëpp ñu dajawaat final. muy guy gi waa mhm. ñu ne làmb ji ku si daan. da ngay déclenché da ngay déclenché dem VIP bëreeg ñoom. Mhm. VIP moom xoolal kaay wax la. je suis pas ciblé Bombardier pour bëre moom moom kese de. dañ ñëw dama dañ ñëwoon sax Tyson Giri bi ku ci daan far combat bi yàqu loolu sax moo tax ma ñëw samp fii. comprendre nga. ciblé wu ma kenn mais dama bëgg ki may bëreel mu nekk mbër boo xamante ne. mbër bu am victoire la. mais parce que mbër bu defet ba fay ba kenn déggatu ko. vraiment soxlaa ma bëre ak moom. bu fekkul sax bëriwul roi des arènes bi. damay dem bëri ak moom. parce que loolu laa souhaité sam bopp. niveau boobu laa benn booy bi daan booy yëpp du ma ñëw ñi ñi daanu seen patron daan seen patron pare ñëw di jël booy. Mhm. loolu ban sens la jaral na ma toog ñaanu ma yàlla def année blanche de mais jaral na ma ko. mais Ama Baldé mi la dëkk loo ci wax parce que moom ci bi boppam Malick Niang la daan. waaw Malick loolu du si dara xam nga Malick Niang c'est un champion coro bu mu daanee bu mu daanoo gis nga tey wax yu rafet yu mu wax nit mosul daanu wax la wax yu rafet yu mel noonu. Mhm. donc ku mu neex dëkk ku la neex mais na jàpp na mu guy gi moo ko daan man maa daan guy gi ñaari yoon guy gi dama ko daan ba damm ko. waaw donc man aw ma pour bëreeg ay booy essant bi nii xam nga seen patron mooy guy gi dama ko daan comprendre nga daan leen ñu ñëpp daan seen patron dugg VIP. lu uh-huh. ma dara gisuma jaral lu ma dara si àdduna may wàccaat di bëreeg ay booy. li jaaxal ñu bari mooy lan moo tax yéen ñaari parcelle waay yi. Hmm. Modou xëy ne roi des arènes la soxla soxla na bombardier yow it nga xëy mel ni dañ leen ne bombardier benn naakal beneen de boo xamante ni lii la rek da ngay ñëw rek ci moom roi bi dem. non du loolu sax xam nga man moom affaire sama objectif bu yàggaloon parce que boo xoolee làmb ji bu mu amee xam nga ku nekk bëgg na nekk roi des arènes il est parfaitement raison. Mm-hmm. ku mu neex mu dëkk roi des arènes bi. donc euh, man si làmb ji ciblé wu ma woon kenn dama ne woon ku daan soxla naa la ma loolaa wax. Mm-hmm. donc mënoon naa ko déclarer tele wala dara man maa jël ndënd bi ñëw samp ko seen kanam parce loolu laa sof woon. Mm-hmm. comprendre moo tax ma jël ndënd bi. samp ko seen kanam. pour ku ma jël léegi li ma bëgg mooy est-ce que yow sa combat ak euh, ki nga xamante ne ni moom mooy bombardier. Mhm. est-ce loolu combat la est-ce que yaakaar nga ñu ni bu ñu ko tëggee amateurs yi dinañ ñëw. non day fees dell xanaa gisoo bi ma indi esaat. nangul nangul nga ma lenn. Mhm. waxuma booy yi de parce que man aussi tamit li nga ñaan dinaa la ko nangul. Mhm. xam naa ni du benn booy mooy dugg peut-être di la laaj. mais est-ce que xam nga ni sénégalais yi sa combat ak Ama lañ gën soxla. non man loolu in loolu intéressé wu ma quoi. loolu intéressé wu ma ko vraiment loolu du ko def jamais au pile soo jëlee ama kon doo ko jël noo man bu xanaa man bugguma dara man doo ko jël xalaatuma ko xalaatu ma ko sama li ngay wax ni lamb non bugguma sax ñuy tudd ay non non non dama man maa lay laaj parce que dama bëgg man ubbi antenne bi laaj population bi sa combat ak bombardier lan lañ ci wax non non waxuma ay mbër dama la ne man maa la laaj man li ma wax Zoss dama koy def bu la neexee ubbi sa antenne waaw bu neexee def la neex hmm. mais man jëlatuma benn booy ah pare nga ci doo jël pare naa ci booy su dul bombardier kan la suñu mënul woon dañu ka amala ñu jox ma mbër bu nekk ci victoire wala ma xaar Giri Tyson bi jël leen c'est tout mais gis nga booy jaruñu ci débat hmm. Lamine man na mu bëgg dara te ñi fi nekk nii jë nekk ci ay kii comment dire ñu ci bëri maa leen mag. Mhm. comprendre nga donc mhm. dama ne ci. lamb da ngay yàgg ci fi nga ne. voilà du ma ne si lamb ji aussi def samay exploit ba pare di wàcc jëlaat ay boy. mais Zos yaa ko doon def parce que man jël naa la. fii jongante nga ne ma non non non man Tyson laa soxla nga xëy suba teel ñu gis la nga jël guy gi. waaw d' accord loolu d' accord mais Tyson dafa am combat ak Gris moo tax ma jël guy gi parce que guy gi lii lañ ma waxoon ne ma guy gi il faut yéen ñaan ngeen finalu testé nañu ba sonn may leen defaral affaire. booy yi ñi booy yi yëpp ñi ñi ñuy wax dama leen daan booy bi ñu ne booy yi nekk ci yoon ma daan leen mais amatuma la preuve tey su ma daanoon benn booy ne dañuy wax daan na moo leen mën loolu am nañ ma jox benn ponkal ma xool nu ma koy def te ponkal moomu mooy bombardier mooy bombardier mooy kenn ku am ndam ma xaar Tyson ko ci am Balla Gaye soxla ko non lu tax non du ma bëri benn bër bu am defet so <laughs> non du loolu Lamine man am sama objectif ku nekk sa àdduna am nga objectif. dëgg la non duñ la ko bañal. voilà li moo sa objectif man sama objectif mooy entraîner maa ngi entraîner chaque jour maa ngi entraîner léegi saa laa jóge balaa maa ñëw maa ngi entraîner ni ma war a entraîner mu combat bu mag bëre ko mais nekkoon fi du bëre ay booy man Zoss. dootoo bëreetee benn bopp 88 628 04 05 ci biir réew mi léegi Vieux Diouf dina leen afficher le numéro bi bu fekkee ni combat. Zos ak Bombardier intéressé na leen yéen euh, téléspectateurs yi rawatina ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy seetaan émission jongante ngeen wax ñu ko euh, bu fekkee ni benn promoteur soxla na combat bi mun na woote léegi nii ñu wax ci parce que nee naa man fii lay fii fii fii lay tàngee fii lay xoyam xoyam. tey bi dootuma si wax ah. dootoo ci wax non man dootuma la ci laaj. dootuma la ci laaj voilà bu ci ci parce que benn booy. kon Zos est sérieux non sérieux ah, ak booy. Euh, poids lu laay bëreel xam nga te man pois bi may jël dafa naturel damay entraîner comprendre nga yor doole damay entraîner ma doole dama yor cent quinze kilos yoo xamante ne maa ko moom damay mobile nu ma neex laay def sama yaram xam nga làmb nag làmb nag du ay ay affaire de ku gën a diis gis nga loolu expérience boobu noonu nañ ko teg ne ku ciy jaay diis ba ñëw dama lay daan loolu du si dara mën nga ma ëpp te ëppoo ma doole ñaata yoon nga fi gis ay nit ëpp ëpp ëppoo doole xam nga bu buñ jël ne différence de poids chaque jour non ñun am nañ doole non et sax macha allah quoi li ñuy liggéey dañ koy liggéey ak professionnel di ci liggéey ak ay xam nga ay coach yu international yu jóge ay fu nekk sama coach yu jàmmoo xam nga jàmmoo maa ngi koy félicité bu baax moom aussi mi ngi may jàppale ci côté xeex bi comprendre nga ak sama coach yu Camara ak écurie Dóor Dóoraat bi yëpp. ñu ngi def essence bi liggéey boo xamante ne nii. Mhm. incha allah mbër bu ñu téye dañ defal bagage. ci saa si incha amul sax kaay donc amatuma pour benn prouvé ci ay booy. am lan kon booy bu ñu waxee logique. waaw amatul lu muy prouvé ci booy. Hmm. non bu ñu waxee logique rek. bu ñu xool ay riir ay kii laaj na kii laaj na ku mu neex laaj ko. may may may ma jël ki nekk. palier bi nga nekkoon jóge nga fa ñi may seetaan xam nañu ni palier bi nga nekkoon jóge nga fa xaw ma Gris Bordeaux ngay am combat xaw ma Tyson ngay am. combat la xaw ma Bombardier ngay am combat la xaw ma Balla Gaye ngay am combat la xaw ma Tapha ngay am combat loolu man moom leer na ma ci cinq yooyu nga xam ne ñu ci lim koo ci koo ci jël war nga koo jël allo salaamaaleykum.